إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى wan niki tay suba rek bin tambalé bis bi batay jini ñu agsi nag ci guddi gi wax dëgg yàlla nekk ci palato yu am solo yi nga xam ne waa commission culturelle bi ñoo ko tëraloon doon ko ànd ak mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ci biir bis bi ak ñi nga xam dañoo teew ci biir bis bi yàlla def nag ñu toog ak nag suñu jur suñu kilifa suñu lépp di bàyyi Malick Ndongo bu Touba Brescia wax dëgg yàlla nekk euh, suñu lépp wax dëgg yàlla di koo xam ne saa suñu ko gisee rek wax daf ñuy soññ baax a baax kon Baye Malick ñu am mbégte baax a baax yaa toogee ci plateau bi ci bisu xasida bi nga xam ne moom mooy fukkeel yoon ak ñett ñu koy amal ci édition 2017 fii ci Malpensa xam naa bala ñuy jëm ci laaj dañ lay jox kàddu gi rek xëy na nga nuyoo ak mbokk yi xam ne ñoo ngi lay bàyyi xel ci àddina bi yëpp rek bàyyi Malick. waaw salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. di dollee santaat yàlla rek. di dollee santaat Serigne Touba di santaat maam Thierno Ibrahima Fati itam bu wér-wér. di sant itam yéen ñi nga xam ne ca suba ba léegi mën naa ne démb ba léegi yéen yëpp da a bi dagg seen doomu adama yi nga xam ne yéen a ngi leen di toogloo fii di leen laaj loo xamante ne si ni lépp rek luy taaral bis bi la di bégal bis bi loolu lépp dañ ciy sant yàlla rek kon ñoo ngi nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Baye Malick euh, ñuy sant baax ci nuyu am solo bu matale boobu ak kàddu yi laytaay yi nga xam ne moom nga jiital Baye Malick euh, xam naa laaj bu njëkk bi rek mooy mel na ne gis nañ ne euh, bis bi ñi ci ëpp ay ndaw lañu wax dëgg yàlla muy loo xam ne lu yéeme la. loolu nag daanaka dafay mel ne kon taw tawféex ju suñu boroom defal suñu yaakaar muy Seexul Xadim la. Mm-hmm. Baye Malick ndaw yi nga xam ne moo ñoom ñoom la gis léegi nii ak ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ baaxoo woon a gis at yi ci gannaaw mm-hmm. maanaam boo doon defal am njàngat maam naka nga ñu koy defee am njàngat Baye malik waaw foofu laaj nga ma foo xam ne fu am solo la foo xam ne fu ma bëgg a waxe la ndax ndaw yi dañuy ndawi ëllëg. ndax li may faral di wax toujours euh, xale yi nañu takk seen laxasaay te fas yéene liggéey Serigne Touba euh, ñii nga xamante ne si nii ñoom la ñu maaseel ñun ñu nekk ñoom fii ci réew mi man toujours damay faral di wax léeg-léeg damay xaw a tiit li may xaw a tiital mooy euh, man sant naa Serigne Touba bu wér yow mii sant nga Serigne Touba bu wér ndax am na lu bari loo xam ne say waajur defal nañ la ko ca Sénégal am na lu bari loo xam ne samay waajur defal nañ ma ko ca Sénégal instant bii moom lañ yaakaar liggéey ëllëg maanaam ñi ëpp fii la ñu jànge ñi ëpp fii la ñu juddoo li euh, lu baree bare xamaguñ ko dañuy wut loo xamante ne si ñoom amaguñu ko parce que ñun ak ñi nu féete kaw làq nañ lu bari làq nañ lu baree baree baree bari kon bu fekkente ni ñoom dañ fee nekk ñi ëpp yaroo fi ñi ëpp juddoo fi màgge fi jàng fi ba tey ji Serigne Touba def ci ñoom loo xamante ne ci nii def ko ci ñun ñii fi nekk nga xam ne ñun dañuy taqale rek dañ daan taqale ci réew mi taxale goo xamante ne si nii maanaam dégguñu làkk wi dégguñu njàng mi sëriñ Tuubaa dimbale leen ñu dégg làkk wi dégg dégg njàng mi euh, te wax dëgg yàlla dëgg dëgg dëgg liggéeyal sëriñ Tuubaa xamaguñu ko euh, man foofu wet am naa fi njàngat moo xamante ni il faut que ñu euh, amaat foofu ak dal ngir xam naa defaat ci ñoom loo xamante ne si nii lu leen di jëmale ëllëg lay doon waaye wax dëgg yàlla xale il faut nit ñi jàpp ci il faut nit ñi jàpp ci. jërëjëf Baye Malick muy mel ne kon wax nga wax jàmm solo kon xale yi. Mm-hmm. faaw nit ñi jàpp ci ngir ëllëg ñu mën a doon. Mm-hmm. maanaam donte naam nekk nañ sax àll sëriñ bi. Ah. waaye ndax ëllëg mën a gën a mën a jàllale risaala sëriñ muy wooteeb sëriñ bi. waaw loolu kon moom yow yan yan yan yan anam nga jàpp ne buñ ca jaaree loolu dana war a mën a nekk yoo xam ne buñ ko tëralee rek. Mm-hmm. xale yi buñ ci awee ëllëg mën nan gën a wéyale liggéey sëriñ bi fi nga xam ne fi ko seeni i wayjur wala seen nijaay. andi won ñom ñu yobbu ko fu ko faw ko maanaam ci yenn nga japp ne buñ ci teunk wala ñu jaarale ci ñooñu mm-hmm. dana gëna mëna mën mucc ay Baye malik waaw man de amna ci ay xalaat sama xalaati bop nak la euh, benn bi moy lima leen di digal man ci sama walu bop moy nañu di nangoo degg ndigal ndax rew mi dafa nek rew mo xamanteni ci ni rewum loi la te buñu ñu appliquer lolu biñu dem il faut ñu jël yëfi dongay daara teg ko ak diglu ndigal ak jëfe ndigal ndax xale yi wér na ma man ci sëriñ Tuubaa ni bëgg gi liggéeyal sëriñ bi mi ngi ci xol yi waaye nag yëfi gone daa ànd ak ñoom nit nag bu fekkente ni am na lu bëgg waaye famu mu toll euh, mënagu koo bàyyi il faut ñuy jiima jàppanteek moom beneen solution bi ci des mooy nga xam ne sànq rek maa ngi ciy waxtaan ak ñenn ci biir saal bi mooy xale yi pour ñu jot ci ñoom lañ cay def ak nañ koy defee ak nañ koy doxale ñoom bu boobaa ñoo koy doxal yaakaar naa ne bu boobaa daañu ci gis suñu bopp seeni waajur dina leen ci mën a jàppale a sof suñu tànk tubéy xar ne bu eh, waaye ba tey kon est-ce jàppoo ne kon Baye Malick kon kër Sëriñ Tuubaa yi nga xam dañ fay nekk samp fi est-ce que kon jàppoo ne ko ñoom amuñ ci ay responsabilité yoo xam ne ñoom dañ ko am mu nekk seen ay mbagg ndax kër Sëriñ Tuubaa yi dafa mel ne taxawaay bi war a taxawee dëgg-dëgg mooy doon daara yi. tarbiya waye don dalé tànglim muy dal yoon jangale xam-xam waaye dal yoon jangale ab yar comme ni nga xam non seigne touba ci ak dundam terele won manam jamono yoyu murit gi masalan dafa jëloon ku mel serigne dame Daam Lo jox ko mi xamne ku mata jang jàng rek te weesu ko ca la yóbbu ngir mu dalal alxuraan fexé ba nga xam alxuraan mu jël ku mel Serigne Mbacke Bousso wala ku mel mam cheikh ibrahim damal daamal Daaru jox len lu jëm ci walu xam-xam xam ne koo xam ne jàng nga ca maam maam sëñ daam ba àggal da nga dem ñoom jàngi fa xam-xam wala fekk da ngaa ñëw tamit fekk weesu maam ci njàngam xam-xam ci nga tool mu njàng majalis foofu lañ lay orienté ngir nga sàkku ji bu fekkee pare nga ci ñaar yooyu yëpp nag boobaa sëminu ma mi ngi fi ak ñu mel ne ñoom yor ay daal tarbiya foofu la sëriñ daal di yóbbu ngeen tarbiya la ci diggante jàngal la liggéey lu mel ne bay ak xeet yi mel noonu soo paree ci yooyu yëpp nag mu ëndi ci kër gi nag léegi la nga jàngal yëpp nag moom ci jëmmam ngay roy ci moom kon dafa mel ne kon loolu la Sëñ Tuubaa tënki woon mbir mi ba moo tax daanaka mag ñi lu lépp ñu boole woon ko loolu moo loolu mooy sabab ngay dégg léegi Sëñ Fallou Mbacke daan wax naan euh, maag sama mag ji Cheikh Amadou Moustapha al Karim euh, suñu baay Thierno maam jàng nañ jàng maam ni mu ko wax yooyu moo xam ne maam jàng mi waaye yar nañ ba ne nër mm-hmm. waaye tamit yee nañu tamit ban ne jaar kon ñett yooyu kon dafa mel dafay tënk kon ci daara mm-hmm. kon moo tax kon jàpp est kon jàppoo kon kër Sëñ Tuubaa nekk fii ci biir Italie mm-hmm. amuñu ci wàllu ci xale yi ngir fexe ba méthode boobu ñu appliqué daara yi mhm. wajur ci bi nangoo ni seen doom ci ci daara yi mhm. loolu mën a nekk ñoom est-ce loolu tam jàppoon ne kon loolu am nañ ci wàccuwaay ñoom waaw xam nga bu fekkente ne dañuy waxtaan ndax man euh, day am waxtaan yoo xamante ne si nii dama ci dul mën a waxtaan ndax damay wax la tax man ma gëm loola bu nu waxee te sëriñ bi rekk tax lanu war a def ci daara yi dañ koo defut parce que am na xale yoo xamante ne toll nañ ci jàngi école yu ndaw yi ñi ngi dem ci daara yi fu mel ni daara si ngooño boo fa demee dimanche dañuy jàngale samedi dañuy jàngale kër Sëñ Tuubaa ga ca dañuy jàngale yeneen daara yi ci ruq yi dañuy jàngale mais dafa am classe goo xamante ne si nii fi mu nii nii dañoo weesu loola ndax am na ci ñoo xamante ne dañoo weesu weesale seen bopp di jóg di dem ca kër Sëriñ Tuubaa ga di fa def basin mimara ak liif lam te loola du weesu may du weesu mukk feek ngay am juróom fukki at juróom benn fukki du weesu ndax sàkku xam-xam moom fi leen ko fekk te fi lañ koy bàyyi waaye gone yii ma gis man man maanaam ci beneen solution lañuy ñuy waxtaane ak ñoom pour ëllëg pousse bi bañ a réer waaye du doon ca daara jee ni jànge eh, ay ay alif lam miim ak ak liif lam miim ak yanara loolu moom xale yii ma gis moom maanaam ñu toll ci eh, dox dëgg dëgg dëgg dëgg sëriñ bi soxla leen ñu toll ci ndaw euh, maanaam duñ ko def xëy na nag si ngooña daaray si ngooña ak daaray Bérésia ñi ngi dox ci njàngale mi waaye ci xale yi nga xamante ne ñi ngi leen ciy jàngal ñooñu dema ko ju fenn xale yi nga xam ne man ñoo ma tax a jóg ma maasee ñoom ma di leen wooye xale yi tout tànk yi wax dëgg yàlla maanaam pigir yi euh, am na foo xam ne buñ def doolo rek pigir bi dana rate ndax euh, wax dëgg yàlla fi nu ni boo demee feeñi raxase bool yi ak fa ñuy tibbaatee mais ña nga fa fess fa del fi ne ni bo démé ci gasson ba ci biti ña nga fa fess del mais lil tax deug deug bis bi duñ fi ñëw duñ ko diglu parce que ay ndaw lañu manam ñom fi ñu toll seen deret eggagut ci manam raxas lañ ba noppi nañu ñew nak tok diglu xasida gi ñi jang ndankal lañ koy jangé ak ki waxtaan limi wax ci sëriñ bi xam nga loolu day lo xamanteni ci ni lu am solo la lu am solo lo xamanteni luñu wara mëna bayyi xel la mais man li ma ñor dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xale yi il faut que ñu ji ma sensé seen moti euh, lii ñu nekk nii raxas bool ba pare dënale ba pare dellu ca parkin ba taxaw ak yu jigéen yi loola mën naa ñàkk xam nga xale yi jóge fii léegi nga xam ne ñoom ñoo jóg ñun ñu toog mais am na lu ne ci ñoom am na lu ñu gëm am na lu ne ci seen bopp yi mais dañ koo def ci ñoom mais am na ñoo xamante ni si nii lee ñuy def nee ca waañoo bu ñu noppee maanaam dem nañ seen yoon mais ña nga ca leneen mais loolee nag nan la war a mën a def ba leneen joojee deñ loola moo mat a waxtaanee loola moo mat a waxtaanee te yaatal ko parce que xale yi bu ñu leen bàyyi ci seen sago musiba dana leen dal musiba dana nu dal parce que bu ëllëgee lu xew ñun la ñun la te tam ñun ñii nga xamante ne si ni man ñun ñooy wax bu fekkee li ñuy wax du dëgg ci ñun maanaam li ñuy wax maanaam mooy safaan ba lay doon mais bu ëllëgee mais koo ci toogal boo waxee muy la paa bi lim doon wax barki démb du dëgg ci moom mais il faut ñuy waxante dëgg te yàlla tax mais li jiitu ëpp ñun ñii ñoo war a waxante dëgg te sëriñ bi tax jaar ci kaw yoon te dëgg te sëriñ bi tax bañ jayante parce que jayante bi ak raayante ginnaaw bi moo bari mais il faut ñu dindi ko mais nañu raxas suñu xol yi ànd te sëriñ Tuubaa rekk tax mais sëriñ bi kese kese kese kese mais dëgg rekk koy lal sëriñ bi kese kese kese manam amul amul amul nafiq amu ci parce que yow bi nga xeye démb ba léegi fi nga tok jogo fi mais da nga gis lu la jaral man dama gis la ma lu ma jaral motax ma taale sama auto Brescia wut ci fi mais amna ño ñoo ci ni si ni fañu tok seen ci seenu salle di setan mais ña nga naan du deug gaay li du dara mais yow yaay am sa gem gem am xam li la li nga xam ne la ñor nga nek ca man lima gem nit ñi tok ci biir kër yi li ëpp ci li yàqu ñoo koy parce que duñu dem duñu bàyyi nga dem mais yow mi taal sooto yàq say nelaw toog fii gis nga lu la jaral lu la nit mën a wax intéressé wu la mais nga toog sa kër ba gaay yi organisé ba pare nga sol sa mbuumu rafet xeeñoo parfum dikk ta naan gaay yi mais seetal sa bopp buñ la laajee doo joxe te lu ñu wax nga xëpp ci suuf mais il faut nga seetaat sa bopp maa ngi jégalu bu baax ndeysaan <laughs> euh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf malik wax nga wax ji am solo ci biir wax ji wax nga ne xale yu bari dañuy wees ci seen bopp dem di sàkku ji xam-xam te kon day mel ne kon loolu day duggaat kon ci ba tey ñàkk xam ngi ndax ñu salaam li mu wax mooy xam-xam euh, maam nit ki du ko weesoo sàkku li fee mi ngi dund maam li fee nit ki faatoogul ban te ko si jàgg rek maam sàkku xam-xam weesu ko waaye kon li nga waxit kon xëy na kon Serigne Touba am na beneen méthode boo xam daa nga doxee ak ak mag ñi. Mm-hmm. mu ñi wees xam ne weesu nañ ñaari fànn yooyu ma ci wax sànq. di leen daan indi ci njëreem di leen tombal. di leen tombal di leen nga xam ne kon njàng moomu léegi kon njàngu mag la. Ah, waa kay kon xam naa ne kon ko njëkkante waxtu yi bàyyi maa rek xam naa ba tey kon sa kàddu yu mujj yoo xam ne. Ah. di nga ko baaxee kon ndaw ñi ak laa biire comme ni suñu tuwaa di wax maam euh, nation bi ñu fara jox léeg di ci laa ndaw ñi doon suñu tuwaa ndeysaan wax yi wax wax yërmaane lay waxee. kon kàddu yu mujj yoon daal da nga ko da nga ko da ko laabire ndaw ñi ngir bu buñ ko déggee mën a gën a xamaat baax fi ñu teg i tànk ak fan la ñu jëm ak naka lañu ngooy liggéey suñ tuwaa bi waaye yëmut ci ngooy gi waaye naka lañ koy mën a transmettre ba risaale bi mën a jàng jàll muy daxwa bi suñ tubaab bi waaw xam nga maanaam foofu ma doon waxe tuut dama am tuut benn baat bu ma fi dese woon ndax euh, day def ñaare fu ma waxee ak tuut tànk yi nekk ci wetu ñaq damay wax ci waxaale ci tuut tànk yi nga xam ne ñoo yëkkati xasida yi ndax it lu am solo la parce que ñoom itam euh, nañu gën a fonk durus bi ñu war a durus ci biir kër yi te bañ di xaar ba nga xamante ne si ni woo nañ leen rek ñu daal di ñëw fi ñu toog ñu bëgg faa yëkkatee la ñu leen doon laaj loolu itam dama dama koy bàyyi xel dama ko doon bàyyi xel toujours itam dama daan faral di wax ni ñi nga xam ne ñoom ñooy yëkkati xasida yi nañuy bàyyi xel ñu leen dàq durus a toog ci seen wet parce que lu ñu durus durus durus bu ñu geesoo gis ko toog ci seen ginnaaw durus ko ñett ce te bëggul nit gis ko loolu lépp daf ci nekk loo xamante ne liggéey bi dafay yaatu nañu ko gën a woyefal te gën di maslaa euh, nga xam ne maanaam yëf yi euh, nañuy dolli di santaat itam suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi jaar ndax jëmm ju mel ni maam Thierno Serigne Cheikh Awa Balla day daawuma def waxtaan tudduma ko maam Thierno Serigne Cheikh sëriñ Balla Serigne euh, Serigne Modou Boussa Dieng ak Serigne Mouhamadou Mourtada damay faral di wax ni len ñet ñi kep ko xamne ne dund ci all bi yor passeport amel nga jukal jukkal noo leen amel noo leen amee leen jukkal mooy maam Serigne Cheikh Balla bis bi mi julli prial pino bisu korité manam nit ñi dañ ko waxon mu julle ci neeb bi maam ne du julle ci neeb ta man dama gëm ni bobu Serigne tuba ko yabal man tierno yabal ko mu du julle ci neeb ñi ëpp ci ñi taxawon ci mbolo mi dañ ne woon tierno bu kabaré kër gi tass tierno bi mu génné ni day kabar ñu yobbu ko ci terrain football mu war fa kabar manam bisu kéro bari na ño xamanteni ci ni fa lañ wacc seeni dal, bari na ño xamanteni seeni dal fa la des ndax ndax police yi taxaw ak gendarmerie ndax bobu fukki auto police ak juroom ñetti motard a fi ak télévision ray una ak télévision Italia una boba jafana xol euh, xol xol yoy yombuton ñu delu fa tegaat sëñ Modou Boussa djeng ñew fi ci réew mi réew mi metti lol ñi upp ci ñi fi nekkon ñaan logo ay keuyit yaakaar naa ne tey jii këru Moodu goo dem ay këyit dafa fees te bu doon leneen a mu demee neneen tey defe naa ne bu xasida dee jolli kër Serigne Touba yi ne gàññ ginnaaw yàlla grâce à Cheikh Mouhamadou Mourtada kon yooyu ñett la yoo xamante ne si ni toujours war nañ koy bàyyi xel man nag li ma bëggoon dëgg dëgg dëgg ci xale yi mooy nañu takk seen laxasaay yi te summi seen tubay yi ni yolomal nit ku ne dafa am loo moom ñun ay jullit lañ ay taalibey Serigne Touba lañu bu ñuy ñëw di liggéeyal Serigne Touba nañu melokaano melokaano dongab Serigne Touba bu ñu jógee ci seen bopp nañu seet nañuy defee ci seen bopp ñu di ko defee waaye liggéey Serigne Touba yii buñ ciy ñëw nañu mel melokaano dongab Serigne Touba parce que kenn ku nekk li nga bëgg rek ngay roy nit day roy li bëgg te ñun ay taalibe lañu ñun ay royukaay lañu diggante dund gi ak dee gi nag lenn lu ko fi jar dafay ñëw ndax yaakaar naa ne ñu bari dégg nañu xisa bi nga xamante ne si nii maam Cheikh Ibra Fall bi mu génnee ci kër gu mag gi génn ci ku mag ki génn jaar ci pencum njaarim mi wuti kër euh, génn di dox ci penc mi romb koo xamee ne booba da doon dallu mu la ko ah, doom looy def fii fekk mi ngi dallu mu ne ko bàyyi dama doon dallu de mu ne ko doom te nga jóg liggéey li sëñ Bamba diggante dund ak dee dallu xaju fi ñett doon ca bar sàq di dallu kenn fëgg gu leen yee tamuy lu wér kon dongo yi nañu gëm Serigne Touba wóolu Serigne Touba yaakaar Serigne Touba te doyloo nit day gëm li mu doon ndax fii kat ay royukaay nga fi de am na jëmm yoo xamante ne si ne man gis naa ko ci maam Thierno ma leen ne jàkk sama addina yëpp ay tukki am na ñoo xam ne bu ma leen lenn lu may liggéeyal Serigne Touba ba di ko amul nit nag day am lu mu bëgg am lu mu visé parce que feeg yaa ngi dund te amoo loo bëgg li ngay dox zéro la nit day bëgg mbaa bañ. nit ki da nga dama lay bëgg ci saw melokaan wala ma bëgg la ci jikko wala ma bëgg la ci saw ni nga ni ngay doxale waye bu fekkente ne dama seen sa mbubb mu rafet rek ma top la day tilim nga fot ko mu ko jëm ji ak xol bi mo am solo nañuy set li ci xol bi ñu diko jëfëndiko raxas ko ba mu set ñu ta señ bamba rek tax kon xamna ma ngi jégalu bu baaxa baax ndax sama xol fess na sama xol toy na di ñaanal itam nak mboolem ñi nga xamni ñoy yor fi lo xamne luy genné ay image la muy caméra muy rajo buy wax muy ak lu mëna doon yalla nañu Serigne Touba samal bopam man de lima bëggoon ñi nga xamanteni ne bokku a fu ngeen jëm ngeen bokku ay goj fas yene and ta Serigne Bamba rek tax ndax li lay man dem rek ma ngoy waxante sang ñun ñi fi ne kenn ku ko ci jang ci école amul day suñ bëgg-bëgg ñu di ci daanu di jog ba Serigne Touba defal na ci lu kawé ndort nañu li métier la lii nii liñ koy xeep xeep xeeb ñoo ngi liggéey sëñ Tuuba liggéey bu rëy kon nag du ngóor du njàmbar du yaafuus ndimbalu sëriñ bi la de dañoo defe ni ñu ne waaye duñ ci dara lépp sëñ bi kon nag maa ngi jégalu bu baax a baax tey ñaan sëriñ Tuuba yàlla nañu yàgg boole ànd bi gën a yàgg xol yi gën a ànd te gën a sell yàlla nañ ko sëriñ Tuuba defal tayit nag ñu xam li nu boole ndax sëñ Bamba nu boole de boolewul suñu bopp bu doon te danoo boole suñu bopp rek man bu may génn fee léegi di xëttal góor aw saaga wala ma xëttal idime aw saaga wala wala wala sans waayi télévision ji waaye nag sëñ bambaanu booleel boppam nanu xam li nu boole yàlla nañu sëñ Tuubaa jàppal boppam sëñ Kamal moom mi nag xam naa ne mënu ma koo ñàkk beral ak cantam ndax it danoo yàgg ndax lu yàgg dëgg la ndax fii man moom ku fii naafeq xam naa la ku fii dëggal xam naa la ku fi eh, doxin itam eh, ci giñ càggañ it xam naa la ndax yàgg naa ma ci ñun si sunu biir kon yàlla na sëñ bi jàppal boppam rek. tey yéen it xam ngeen ma nag waaw ndax itam nit ki bu la nee xam naa la ne ko yow xam nga ma kon xamante nanu yàlla na maam Thierno jàppal boppam defal nu saxaadatu daaray nii defal nu mujj gu rafet la sëñ moo du Maxtaar waxoon ni am murit buy dund te bu dee jëm àjjana boo ko nee jàkk da ko war a xam daa war a wér war a dëkk ci taax mu rafet rafet. takk jongama yàlla na ko maam Thierno defal barke Baye Cheikh Awa Balla jërëjëf jasaakumullaahu jërëjëf maa ngi jégalu bu a baax kàddu yi jërëjëf jërëjëf amin jërëjëf euh, Baye Malick Ndong Touba Brescia kon moom lañ doon dalal ci plateau bi ci fii ci Touba Milano ci Malpensa Fiera ci bisu xasida bi nga xam ne moo la ñu amal nekk fukki yoon ak ñett ci Busto Arsizio ci Malpensa Fiera kon mbokk yi xam naa ñu leen joxaa kom dig ndaje xam naa ci kanam tuuti incha allah ak yeneen mbokki taalibe